avenir u Amadou Ba est-ce que mën na continuer euh, envisager son avenir dans Benno euh, et puis l'avenir de de de Benno Bokk Yaakaar de APR. bon enfin dans Benno peut-être que mën na continuer kat Benno mais dans APR de yaakaaruma tukku ndax waa APR ñoo ko tax a perte bokk nañ ci ñi ko tax a perte est-ce que waa parti boobu di bokk ñoom ñu lay tax a perte nga dikk àndaat ak ñoom quest que tu vas représenter là-bas. ñi la doon xeex démb bëgg démb tey boo ñël si waatee ànd ak ñoom mais tey dañ lay gën a mën a xeex ils ont de bonnes raisons de le faire xaw lu Amadou Ba di def mais bu dee dafa bëgg ne politique yaakaaruma ni intérêt am nekk na ci continuer ak waa APR honnêtement. mais dans Benno oui. mais oui mais Benno c'est une coalition qui il peut être euh, dans un autre parti politique membre de euh, Benno euh, comme il peut aussi sort de Benno mais je veux dire APR ci boppam parce que tey bu fa di compter ñoo ko doon. fakkatal pourquoi ñuy arrêté kon di ko fakkatal ils vont lui dire que tu n'es plus légitime parce que joxoon nañ la candidat yow tu as perdu kon ñun nañ ñu bàyyi ñu essayé ñu kon ban autorité la fay am te APR nag aussi aujourd'hui bu ñu te dëgg mais Macky Sall c'est le patron de l'APR est-ce qu'il a décidé de donner l'APR à Amadou Ba en tout cas man dégguma ko bi muy wax naan damay dénk parti bi am maam Amadou Maam Diop la waxoon la koy dénk bu ma nekkoon Amadou Ba wax dëgg yàlla du ma dem élection présidentielle am score bi ma am malgré les crocs en jambe de mon parti ma dikk di toppaat ginnaaw ci biir kenn ci biir biir parti boobu bu ma nekkoon place am laa wax est-ce que dina continuer politique est-ce que dina former parti politique am day dem génn foofu dem rejoindre PS wala PIT wala euh, keneen man loolu xaw ma ko en tout cas il l'a pas mais jàpp nga ne moom mooy on a un cas de figure particulier quand même euh, aujourd'hui c'est Amadou Ba le candidat de le, le, chef de l'opposition Enfin, chef de l'opposition, en tout cas, il est arrivé deuxième à la présidence de la République. Maintenant, les critères de désigner de l'opposition, je sais pas c'est quoi. c'est celui qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale qui est chef de l'opposition ou celui qui arrivé deuxième à la présidence de la En tout cas, ci projet bi bi de loi bi Macky la référence c'est la présidentielle. C'est la présidentielle. Ah bon, dans ce cas, il est chef bon enfin oui bon c'est que Sénégal la ñu dañuy ay textes rek léeg-léeg parfois qui ne collent avec la réalité aussi mais à l'application on va voir bon est-ce que ces gens-là vont vouloir appliquer le texte chef de l'opposition parce que Abdoulaye Wade waxoon na ko fi appliqué wu ko Macky Sall wax na ko appliqué wu ko est-ce que ñun nañ ko wula. il y a eu un début d'application ak Idrissa Seck de. non non il n'a pas comme Idrissa Seck. ah da koo jël dugal